gaynde ñoom assuré nañ dalal nañ xel yi li leen doon laaj yëpp def nañ ko sàdd yéen kaay ni sunu gaynde ñoom ñooy kilifa yi foofee ca Yamoussoukro Sud Quotidien ni sunu gaynde ñoom carton plein lañ def ñetti match ñetti victoire bés bi le jour moom mi ngi duppee victoire bi champion contre champion 24 heures ne suñu gaynde yi ñoom li ñuy def boole wuñ ceeg dara ak wax le quotidien yi ni suñu gaynde yi ñoom ñooy buur foofee ca Yamoussoukro Aliou Cissé ci biir Vox Populi ni ak luñ ci mënti am kontaan naa ci samay gone ndax lépp nga xamante ne ñoom def nañ ko ñu jaare fa nag dugg ci politique candidat yi nga xamante ni ñoom la recalé ci parrainage yi noppee seen xeex yi nga xamante ni tàmbale woon nañ ko fan yi ñu génn ubbil journal bi di enquête yéen kaay ñoom nag nee nañ ki nga xamante ni nag moo di njiitu réew mi di président Macky Sall tey dana leen dalal ca palais de la république ñu daal di waxtaan waaye Mimi Touré bu coalition Mimi 2024 nee na moom demul tey demul ëllëg ca palais de la république di jàkkaarloog Macky Sall nee na waxtaan woowu moom du ca bopp moo tax journal bi samp laaj ni ndax élection yi duñ ko toxal ak lu ci mënti am l'évidence yéen kaay ni audience boobu le audience bu dangereuse lay doon tribune yéen kaay ni ak lu ci mënti am ku jéegi nag boole nañ seen doole doon benn ngir jàmmala candidat Benno Bokk Yaakaar bii di Amadou Ba ñoom nag benn slogan rek lañ am mu ne ñoom ñëpp contre candidat Benno Bokk Yaakaar bii di Amadou Ba réew mi quotidien ca jamono jooj nag mu dugg ci biir l'armée bi wax ci dalloo gi nga xamante ni ñu ngi doon dalloo démb patriote la ñaani président Macky Sall njiit réew mi nga xamante moo doon jiite ndaje moom le doon gën a soññ ñi nag moo di commando ba noppi nag doon sargal ak a naqarlu juróomi commando marin yi nga xamante ni ñoom ñoo réer ci géej gi juróomi fan ci weeru janvier bi weesu ca jamono jooj nag libération yéenekaay di wax si mafia ak njunjaaj bi nga xamante ni moo am si fanweer ak juróom benn parcelle foofee ca noflaay ca Rufisque benn waaye daal moo njuuj njaaj li nga xamante ni moo di parcelle yooyu la di ko jaay ay doomu aadama te tegul fenn journal tribune ñëwaat ak ñun ci tiis bi am démb ca sogaas benn waay moo faat ki nga xamante ni moo di xaritam di Abdou Diaw ci anam gu yéeme gu metti gu doy waar tribune yéenekaay ak ñun ci Abdou Diaw